sëriñ Abdul Aziz Diaw du nit yàlla ku màgg ku makkilee di borom rus na maa xam góor muy am gàcce ci kaw lal rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci mystique rus na maa xam nit ñu di ko xeex ci baatin waaye rus na maa xam nit muy dellu ginnaaw rus na maa xamanteeg nit ren ba déwén gaañi di ko yërëm kooku mooy sëriñ Abdul Aziz Diaw ay numéro mi ngi doon di affiché ci baaro écran bi ngir mën a jokkoo ak moom lépp luy fajum plante lépp luy ñaan yàlla jokkoo leen ak Serigne Abdoul Aziz Dia gannaaw ba 9h jotee ba teg 33 minutes fële ca yëmbal jàpp route de Malika ak li ko wër jaajëfal nañ leen bu baax a baax émission bu mag bi la dellu seeti na ni ngeen koy amee altine ba aljuma 9h30 jàpp 10h ngeen ànd ceeg équipe bu mag bi la Alaaji Sanjoogu Mbeng ak euh, ma jigéen Diop ak bu ñu gunge leen ci ba 10h incha allah ay fait divers lay doon waaye ni ngeen koy amee euh, euh, suba su nekk xayoo moo leen ci gunge xayoo nag di téléphonique bi nga xam ne Euh, maanaam euh, téléphone euh, téléphone communication la boo xam ne macha allah yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci réew mi ak biti réew te doon am jafe-jafe yenn saa yi te am yenn woote mu cher wala bu ngeen yorul whatsapp muy metti ci yéen xay yoo nag dafa ñëw pour jegeele leen ak askan wi ci wàllu communication mu yomb lool waaye ci biir loolu nag da ngay télé da ngay télécharger li nga xam ne moom mooy application ba pare ginnaaw bi ñu ko télécharger ci kanam ma jigéen dina leen jox numéro téléphone yi nga xam ne ci ngeen jaar woote ñu daal di leen wax naka ngeen di def ba ñu identifier leen ngeen mën a am seen numéro la bare bëree bëri di nga am sa numéro téléphone ginnaaw bi ñu la identifié ba daal di lay configurer lépp nga am sa numéro di woote di wuyu ginaaw bi nga amee connexion opérateur bu waaye mën a bokk da nga leen mën a woo te du cher incha allah mi ngi noonu kon jaajëfal ko baax a baax moom mooy euh, séddale ñu ne ci TV sa dem na fee ca saa ba yàgg mu ñëw ci man xaw dafa corona bëgg koo wàlle xaw lu xew Abdou Top maa ngi koy koy ziyaara bu baax a baax alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu sëriñ Siidi moom sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ca Touba di xarit ci sëriñ daara yi alaaji maa ngi lay nuyooti soñ bu ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontante di nuyu sénégalais yi ñuy teewlu biir réew bitim réew mm-hmm. di dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëriñ Muntaxa waaye di nuyu sunu sunu xarit sëriñ Siidi mu sëriñ ko ñaanal Mbàkke mu yàgg lool te ànd ak wér di nuyu bu baax ki nga xam ni moom la jox sëriñ Xaadim Fall nekk ci kër ga di ko ñaanal jàmm waaye di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Karim wax laa di nuyu képp kuy kilifa diine di yeewoo ci biir réew mi di nuyu waa Léona Niassène Medina Baye Tivaouane Ndiassane Layène Thiénaba Andoulaye di nuyu it waa jaamal di nuyu sunu mbokk jàngu bi di nuyu bu baax a baax euh, ma jigéen Diop mi nga xamante ne bii mooy xalif général kullu kuy sàngoo kwet waaye léegi fi mu toll nii lekkatu euh, borom cag-cag yi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm mais aussi euh, di ma jigéen xulli bi moo a jaaxal di nga may <laughs> ni nga ne ma jàkk nii. xulli bi la xool ko ni muy xulli di nuyu vraiment di nuyu bu baax a baax euh, <laughs> mën du xuy bay tax même di wax ni lii ba jàmm la Hayo mooy quatrième opérateur téléphonique fii ci Sénégal ci réew mi waaw ñoom Hayo nag hmm. technologie bi ñu ne dafa nekk high tech. maanaam technologie bi dafa xarañ. Mhm. xam nga koo xam ni woo puce. waaw pour nga daal di tàmbale di woote. ñoom dañ koy jaar par li nga xamante ne bi moom la ñuy wax. Mhm. da ngay télécharger application bi hayoo. Mhm. bañ a def nag comme Mor Dia bëgg a rek bëgg ko kii rek. télécharger rek wax loolu koo gis. numéro yi nga ma jigéen di joxe fii mooy numéro yi nga xamante ni ci ngay daal de envoyé sa kiw bu ko defee nga xam ne nga jokkook ña nga xamante ni bii kat dinañ la wax lu jëm ci wàll bi nga xam ne mooy waaye xayoo indi la caay leet xayoo nag li mu wuteek whatsapp whatsapp whatsapp rek la mën a woo waaw xayoo nag tey boo ko amee yow nga yor ko yor sa connexion sa connexion internet mën nga woo ku la neex ku ko am ak ku ko amut maanaam ku xam ah yoo ak ku amut ayu mën nga woo opérateur yëpp sans pour autant que te boo leen di woo dafay nekk comme appel yii nga xam ni moom lay nekk defe naa ni son yi bu woo naa ko ci ba yi mu naan ma kookan la ma ko man la saa hayoo loolu di lu ma jigéen wala xulli bi xulli fajar gi ñu ngi lay nuyu ah. bi façon xool nga ah, man moo ma jaaxal quoi man xool daf ma xool ba ma planté wu <laughs> la bët mën a yem <laughs> maa ngi lay fay kii euh, Sadio bu dama ragal ni da namm suñu sën yi moo tax nga xëy tey di ma tooñ du dëgg sooy bu. Hmm. waaw daa namm. clémentine yeeg suusal yi. waaw waaw loolu dëgg la parce que saa yu masaan jóge fii laay ana suusal bi. waaw kay xam naa loolu la ndam moo ñàkkul moo tax tey bu ma xëyee ma rek di ma tooñ nii waaye maa koy nuyu di ko ziar di la ziar yow itam di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp nag di nuyu waa Ceskay benn dëkk ñaari gaar euh, nuyu suñu mbokk waa Bawol yi ak waa Sine ak Saloum ak képp ko xam ne rek yaa ngi mm-hmm. euh, yeewoo fii si biir réew mi nekk baykat wala nga nekk wala yu nekk si oto yi di dawal di def ah, transport wala yu si boulanger yi tam ñu eh, nekk ci marché yi tam kenn fàttewu leen hmm, ah, voilà <laughs> di nuyu ñëpp di jaay nuyoogu jaaykat tissu ah. bëggoon wax far nga wax ko <laughs> maa leen nuyu bu hmm. <laughs> nuyu suñu xarit yi nekk si diaspora bi di nuyu ñi nga xam ne dañuy jaay ay daal ay sac ak accessoires yeeg yëpp ñu ngi bu baax a baax nuyu suñu mbokk bitim réew yëpp sooy bi jóg. waaye foofu nga jëm ko borom saak. Hmm. képp ku nekk marché rek. léegi yaa nga bitim réew daal. waaw ana waa Facebook. waa Facebook ana ñu. ah ñëwuñu tey. ñëwuñu tey. <laughs> ñoom fuñ ne. ah est-ce que boo demee est-ce que ah, kon tey ngaa def live ma jigéen. gannaaw pourtant mënoon naa indi sama kii bi day daal def. def laay waaw dëgg dëgg. beneen yoon dañ koy gaa yi xëdd ak xëdd bi waaye est-ce que jim xëdd kii ak euh, Ibrahima est-ce que kii wuñu xëdduñu rek sarale. waaw xam naa jéen dafa xëdd sarale sar sarale. sar sarale sar sarale. waaw saa topp mii di wëndeelu ci kër gi boobu rek lan la. non non xamuñu lan la de. topp mosu fee ñëw fajar léegi lu tax mu ñëw fu ne mu dugg. mu mm, ñu wër rek de. ah je sais pas xamuñu lan la de. toog na foofu seen ginnaaw di upp ñu déet waaye mu ñëw fii di wan nag wan nag. déedéet xaw ma terroriste la xaw ma <laughs> dinaar. en tout yi jaaxal na ma de. war nañu ma dañ ko ko digal. waaw doon capala bu ba pare mu ñëw sa ginnaaw la lu xew ba jàmm. am na lu xew. <laughs> ay alay alay baal caba. sa mm, mm. Ah, sama waay la moom. Ah, sama nami de longue date. waaw xam naa ma nga ca volant ba di ñëw. Mm, <laughs> yéex na ko wax de. <laughs> mu ne tekk. <laughs> tekk gi lu tax <laughs> am na lu tax de barke bi. <laughs> caba alaaji bal cab bu la nuyoo nga yeex koo fay mu ne lu tax nga gaaw koo fay mu ne ah gaaw na de xanaa na ko pare woon sañse nga mu ne tabaarakalla caba sañse nga mu ne tabaarakalla nga sañse mu sañse romb la waxoo mu ne ah lu tax waxut te laa gën a sañse démb de am na am na lu tax am na hmm. aywaay <laughs> sa xarit la daal alaaji àddu gaa sa waaye daal. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Dramé. Mm. beneen monde la de. ak ajaratu bitim mbuub. xamuñu ko mais mm. caba ci ñu gën a neex ci senegal la bokk. ca baax na. fu <laughs> ñu koy nuyu di nuyu bétti di nuyu. Sukay Mbaye di nuyu ñëpp voilà. voilà aywa. ayca mi ngi noonu ma jigéen ndaw ñi bu bu ñu yeboo ci gën a cëppi cëppi ndax euh, daal tabaarkàlla gaa ñi nee nañ tey daañu amal ab lël fële ca euh, jam ñaajo lépp daal soxal li nga xam ne moom mooy xëyum ndaw mi nga xam ne moom lañ diggee woon kon ba léegi daal ndaw ñi bu leen neexee ñu cëppi cëppi seen way juri nañu kontaan milliards yi ñu leen daal gaañaa nga ca ci lël ya di tëjoo ko def yëf xool naka la ñuy def ba ndaw ñi daal di gën a am lëggéey mm. waaw loolu daal bokk na ci point yi nga xam jàpp naa ko tey boo ci doolee benn rek muy ñamale gi ñu jàll ci jomme di voilà sooy bu euh, cuppi cuppi moom teel na de. parce que yàgg nañu def ay promesse te jeunes yi du ñu si gis seen bopp kon nag. waxtaan bi ñuy war a amal fële sa jëm ñaajo muy euh, muy xëyu ndaw ñi président Sall war fa dem tey euh, war fa def waxtaan bu am solo waaye nag jàpp naa ni booba tey nag ci ay waxtaan lañ dëkk son yóbbu mm-hmm. parce que à chaque fois su génnee wax leen rek après dañuy si wax ji rek lay yam il faut que tamit wax day ànd ak jëf mu gën a neex su ko defee jeunes yi euh, gën a mën a jox bopp ki nga xam ni moo di président bi mais à chaque fois même discours bi ngay dégg wax bu ànd ànd ak jëf moom musiba la te tamit euh, gars yi dañuy faral di wax naan loo deful si 9 ans mënuloo ko def si trois ans mais na fexe rek ba euh, def ay effort hmm. yoo xamante ne nii dina tax nit ñi xam ne kii kat def def na ay pas yoo xamante ni jeunes yi dinañ ci gis seen bopp. Mhm. mais ñoom à chaque fois rek dañuy dem waxtaanee ko après ku nekk dox sa dox coow li commencé waat bëri déjà nit ñi ku kuréel gu nekk mi ngi commencé di génn jeunes yi. ñi nga mhm. xamante ne nii dañu am seeni i ay diplôme ah, liggéeyuñu ñoom ñëpp a ngi toog di xaar il faut que tamit wax ji ànd ak jëf man daal noonu laa gisee. Mhm. beneen bi tamit maa ngi dégg Abdoulaye Diouf Sarr muy wax ci affaire vaccin yi parce que nee nañ euh, ñi ni ñu doon vacciné woo dafa wàññeeku léegi torop torop torop torop parce que nit ñi ñoo dem ba wóolootuñu ko ñii naan après ñoom kii bi ñu joxe prétexte bi ñu joxee mooy koor gi la te ñëpp xam nañu c'est vrai koor mënut a ànd ak ay vaccination mm-hmm. mais après ndogu bi dañuy gis ñoo xamante ne nii ñi ngi leen di vacciner te nee nañ ñi daan dem fi mu toll nii boo ko xaajee daanaka rek ñoom ñooy mm-hmm. nekk di ñakku muy wane ni rek communication bi ba tey daf dafa des mm-hmm. waaw ndaw ñi de jàpp naa ni war nañoo sant Ousmane sunk bu baax a baax a baax a baax baax Ousmane Sonko lañu war a sant wala Adji Sarr non non c'est que li tax ñu war a sant Ousmane Sonko. Ah. waxuma de egsiwuma ci kii boobu quoi ci lii rek laay ah, laa ah, wax quoi ci lii. parce que li tax ñu war koo sant. waaw Sonko dafa wax ne Macky du def dara. ah d'accord waaw ci discours am bi. waaw discours am bi du def dara la du def. Uh-huh. dara la du def boobu. Uh-huh. mën na tax sa waay bañ bañ lu ba def dara. loolu lu baax la looloo tax opposition baax. opposition bu actif day jañax ki nga xam ni moom la ñuy wax ki nekk ci pouvoir pour muy def ngóora mais opposition bu ne yàcc rek président bi mooy jël décision ne maa ngi dem gisante yeeg ndaw ñi maa ngi financé maa ngi kii opposition bi noppi rek mais bu amee opposition bu dëgër bu nekk ci ginnaaw uh-huh. bu koy wax parce que lu fait que Sonko ne du def dara uh-huh. loolu genre u ñaax la aussi tamit uh-huh. que ni tamit président tamit bu échoué Sonko ne voilà échoué na donc nag président du bëgg fi mu toll nii ah, échoué donc je pense que ni bii yoon dinañ bu ñu ndànk dinañ jéem a moytu di ko defal seeni ndawi parti kese ah waaw mën na gën a yaatu ba ñeneen dinañ ci mën a bokk parce que mhm. li tax mooy ñi ngi calculer wax ji nga xam ni moom la Ousmane Sonko wax ne du def dara du def dara boobu vraiment mhm. euh, kàddu la goo xam ni man bi ma ko déggee dama ne voilà lii lu baax la ci koo xam ne mi ngi ne mi ngi defi nga ne ko doo def mhm. te ki ko wax ne ko doo def nekk wujjëm bi nga xamante ne bii mhm. mooy wujjëm bi gën a wér ne kii mooy wujjëm wax ko ne ko lii du ko def tey jii nag waa ji nag fii la ñuy xoolee nag ndax mën na wala munut parce que bu ko deful rek mooy munut d'accord waaw su su fekkente ne bi échoué na mhm. mooy wax dëgg fa yàlla dafa tële parce que nag am na xam naa ne am na volonté pour montrer ndaw ñi ne leen waa ji li mu leen di wax dinaa réussir Ah, léegi nag loolu bu amee. kan moo defar. su amee waaw. tey jii président bu fekkente ne bi teg na affaire yi ci yoon lépp daa dee dox. léegi boobaa kan moo defar. Sonko Sonko la parce que daf ko bëgg a défier wan ne ko li nga wax dina. est-ce que du waaj est-ce itamit dafa bàyyi xel ndaw ñi est-ce du ndaw ñi du Sonko du ndaw ñi la Sonko doon. ndaw ñi la ndaw ñi di noonu ni ma déggee alaaji waxee. Ah. Sonko lay doon parce que euh, euh, euh, Sonko dafa wax ni du def. waaw ah. kee moom buggul mu mu mu gañe ko si li mu wax ne du ah, def. léegi nag dina def tout. ba wan ne ko. mën naa te def naa. donc bu boobaa Sonko moom mooy. mais Sonko bi mu génnee dañuy la xew lépp ndaw ñee ko réglé waaw xam nga Sonko ndaw boo waxee Sonko ah. ne ndaw ñi jeunesse bi ah, ah, kon kay Sonko ak jeunesse Sonko moo ëmb jeunesse bi rek waaw Sonko loolu bi mu pa looloo tax nag fi mu toll moom mi ngi mi ngi jàppale ndaw ñi mhm. parce que fi mu toll nii donte yorut li nga xam ne mooy kees gi mais mi ngi jàppale ndaw ñi ci façon bi mu leen di jàppale ci communication bi parce que tey jii fi mu toll nii président dina jéem a def lu tout pour def parce que bu deful rek mooy li Sonko waxoon ne ko du def waaw te léegi nag bu defee nag mu doon njariñ ci réew mi mm-hmm. te Sonko n'est-ce pas dafa bëgg bu ñëwee moom def donc nag bu ko fexee ba force tëral ko ci communication ba mu def mm. mu nekk njariñu réew mi mm-hmm. donc Sonko kàddu gi mu wax perte mënu ci am quoi mm-hmm. donc loolu la donc nag ñu ngi wax nag président de la république mm. euh, que Sénégal ndaw ñi dañu soxla liggéey la ndaw ñi dañu sonn vraiment mm. mbir mi buñ ci dugal lenn par parloo nañ xam ni ñi fay ñëw ñëpp ak ñi amut liggéey ñëpp mm-hmm. ay sénégalais lañ d'abord balaa ñuy wax parti sàngam nga bokk ak parti sàngam nga bokk mm-hmm. te defe naa ni li ci am solo mooy ñu seet ña nga xamante ni bii kat waaw nañ ngir ñu financé leen te am nañ ay projet yu dëgër mm-hmm. ñu financer leen te li ñu jotoon a def ngir yàlla nañ ko saytu ana alal jooju fu mu dugg mm-hmm. waaw parce que tamit di jëkkati rek di sànni mm-hmm. loolu jaaduwul mm-hmm. waaw am na solo beneen bi ci des kii wax na ci wàllu vaccin yi ma jigéen waaw vaccin yi moom mii de li ma jigéen bokkoon na ci ñi taxawoon fii ne dina vacciné yow man kër la waaw bu ñu demee nag ba toll fii yaa ko wax fii de ci émission wax dëgg fa yàlla sénégalais yaa ngi lay bu dee nag dangay wax di ci daj sénégal yi xam nañ li nga waxoon yow yaa taxaw fii man ak son yi bu ñu taxaw mhm. ne ñun demuñu ñun moom ba tey ñu ci sunu logique vraiment ma jigéen de man moom xanaa ñu jàpp ma karma mhm. pikiir ma dong la waaw waaw man moom liy yóbbu nag seeraas moom a yóbbu ca vaccin yow mii nag nga xam ni yaa taxaw fii wax dëgg yàlla daal di wax ne da ngay vacciné wu am na keneen kooku waxoon kooku dem na waaw. léegi sagam ñi dem di di vacciné wu ji ñoom ñooy ñëw di la wax ndànk ne la bul dem parce que li may yëg. ah déedéet déedéet en tout yow li mën a. waaye yow daal il faut nga honorer sa kàddu. nit day fonk kàddoom. waaye nag nitu kii alaaji. vacciné wu. respecté sa kaddu. waaw kaddu dafa am solo de. kaddu dafa am solo kaddu bu bu bu suñu doon nii ñàkk sa kaddu boo fekkee ba auditeurs yi ñu doon nii sa kaddu gi nga nga ñàkk ñu ñàkk ko ci yow. sooy sa kàddu gi sorewut ak mayonnaise de. ba ñu ma vacciné wu de. sa kàddu gi bu mel ni laalo. AstraZeneca bi ah, xaw ma ak Sinopharm. beneen beneen vaccin bu mel ni laalo sa kàddu gi. tey ngaa dem ñam laalo waaw bu may dem de du ma leen fi bàyyi. ah ñun nen ñun ñun kañ déggoo li xam nga man man man li ma la man armée nationale rek ñoo ma mën a ñàkk ma ñàkk. <laughs> armée waaw kon ko ñàkk. police daal faaw armée bi ñu rek ñoo la armée daal ñoo mën a ñëw teg may fetal ak sar de combat jiital. <laughs> loolu di sar da ah, laa ceemale armée rek ñu la ñàkk rek. na ma ñàkku. saar baa ngi nii boo lànkee ñu dóor la ko. ma soog na ba pikiir leen. alaaji yow kon. dee nga ragal. yow non non du loolu sax mais daa ñàkk jiwoon <laughs> yàlla alaaji foofu laa ne fa nga nekk. armée fa laa ne. coalition armée. waaw man <laughs> daal armée armée la bi ñëwee saa kër. parce que bu police ñëwee sax ñu bu ñëwee ñu jéngu bu gendarmerie a jéngu man GIGM lan. ah na dañuy jéngu. ah dañuy jéngu ñun armée dong ñu jaaxal. waaw. waaw Baye moom it nee na ca la fa la nekk de. ci armée waaw nee na <laughs> kon jaajëfal leen bu baax baax ah, kii nag moom ñu ngi koy wax maam Leyti Ndiaye moom garde pénitentiaire ma jigéen. Ah, dañuy bàyyi xel bu baax a baax laa fi doon wuy juram moo daan déglu wal fajiri ba ndeysaan rajo bu mu jàpp. Mm-hmm. day dem daan nit jàppal leen ma ko ba ci kii bu dee jamonoy corde yi mu ne daggal leen ma corde bi. ndeysaan ndeysaan ah, ñu ngi koy nuyu bu baax baax moom maam Leyti moom la caporal moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. dëgg la ma jigéen de jommeetu tey bii. Hmm. ah jommeetu tey bii daal ma jigéen. Hmm. li naan daal ndeysaan nit liggéey na ba bëgg a dee xëy yem ni mën ni faraas ni daal xëddeen lépp jaare ci jigéen daal moo xew ci jommet bi le. baatu jigéen a defati ma ni waa ji daal tuubal na soxna si. Hmm. takk ko ñëw ak moom Sénégal. ay mbir yu baree baree baree baree xew na ci fan la histoire bi mujjee nag waajaangi man tamit fu mu toll nii dama am soxla boo xam ne vraiment daf ma jaaxal ma jaarale ko ci yow nga si jàppale naar laa quoi dégguma baax mais xam nga ngi tàppale quand bi ma commencé dem Congo di dem ñëw xam nga day far na ma gis benn xale bu jigéen ma bëgg ma bëgg ma lool à la man ak moom comprendre nga bi ñuy marié nag ma nekk ak moom foofu ñu amee benn doom bu jigéen vers 2010 yooyu waaw ñu nekk noonu bon bi mais après 2010 2011 2012 2013 2014 sama mère gaañu bëggoon naa ñëw nag mais gis naa ni position moom bu mu nekkoon foofu mënu ma ko mënu ma ko ma bàyyi foofu parce que xam nga foofu Congo noonu bëgguñ tax ñu ko bëgg étranger noonu mais moom nag bëgg na ma mais famille bi anduñu si euh, après moom nag mu góorgóorlu topp moom xamal leen carrément man la bëgg waaw ma nekk ak moom fam naa ba mu réglé affaire yi man ko léegi nag dinaa dem pour xooli dem ciali ji daal gis sama ministère mère bi affaire yi ma ñëw ñu mu ne ma y a pas de problème c'est comme ça mun nañ ànd ko amal képp pas de problème ma dem gisante ak parents yëpp tout ça ñu nangu ko moom nag du jullite woon après si la dugg l'islam 2012 2012 ah parce que après ñu ñëw fii Sénégal ñëw fii Sénégal nag ñu nekk fii ma nekk ak moom fii presque sept mois bi moom ma bàyyi fii ma dem ma dem Congo commencé di liggéey di di yónnee fii bon nit ku baax la waa kër yëpp jàpp ko vraiment après nag par amoon sam benn rak bu amee kenn ki mooy jël jabaram affaire yi moom nag nee na non loolu baaxut loolu du du mbir yu moom di si dugg ñoom noonu lañ doon wax quoi par nag affaire bi xëy na tombé seen

même si ñu am problème saa su ne chaque am problème ba benn jour rek mu jël bagage am maa ngi taxaw mu ne lay dem dem na léegi mu lan moo ko daal bu ne naa dem parce mu nekk ak man affaire mu jël sama ñaari doom yi mu dem nag ñu ne naa dañ biir kër gi mu génn kër dem na fi ba mali def na lu benn sëriñ mënu fexe boo dindi affaire boobu ñaari doom benn doom bi sama doom la doom bi mu amee trois jours na mu ko indi trois jours moom xale la xamul dara mais man boobu léegi am cinq ne xoolal booy boobu la jël sama loxo yóbbu ko léegi su ma ko waxee mu ne kii du sa doom doom sa mag la affaire boobu métti ma mais li ma gën a métti mooy yëttim bi papam yaayam yëpp ay yéefar la moom mu juddoo mu am problème bi man ma jël ko def ko musulman bu mu am juróom at commencé dugal ko arfana di jàng mais xoolal kooku tey ji bu delluwaatee ko mu day delluwaat ci seen diine te day doon beneen affaire kuy man di sa loolu moom gën a métti quoi liggéey bu ma liggéey ci moom si boppam bu mu nekkoon yéefar ma tubal ko mu nekk jullit doom bu ndaw bi xam ne dafa naroon nekk yéefar te dañ ko naroon rey man ma sauvé bakkanam sama doom yi xam bi ñu lekk xam bi ñu naan xam bi ñu nekk nekkee foofu xamoo ay desit la ñuy dëkk xaw ma lan fee et puis fii dañ nekkoon à l'aise maa ngoon Congo di yónnee chaque fin de mois cent mille deux cent mille métti na ma trop du ma nekk nit ko sama liggéey tardé na ba léegi maa ngi toog fi un an avant corona bi duggee Sénégal deux jours laa ñëw fii ba léegi maa ngi toog yow nii ubbeeku na mais mënu ma dem su ma demee foofu lan laay wax suñ de suñu ma laajtee ana suñu doom léegi lan laa leen di wax nangut wax fu mu nekk si Dakar nangut ñëw te mënul dem parce que mënul dem c'est impossible parce que passeport bi lu lu ci nekk ak papier doom yi lu ci nekk bokkul parce que fii laa ko bëggoon defaree papier moom ci boppam mu nekk comme sénégalaise ak doom yi jéem naa defar papier doom yi toppee doom yi bokkut parce que bu nekkee l'islam aminata lañ koy tudd bu dem tey aar boobu bu fekkente kay Sénégal ñu doxal seen liggéey normal mu ne mu ne dem ba neex ko encore débloqué ma ñu commencé waxtaan ma ñeen xanta ma mais su ma ne wax wax fii rek day day bloqué léegi nag vraiment sonn naa jaaxle naa sama liggéey tardé naa maa ngi fi toog tey ji lépp li def naa sëriñ def naa ko sama jigéen moom mooy jënd ndékki koo xam dafa doon yónnee ay deux cent trois cent sama ñaari France tabax naa defar naa lépp jënd naa samay parcelle mais fu mu léegi vide laa def vide. mi ngi noonu def ma jigéen muy daal problème bu doy waar boo xam ni daal jëlee na ko ci gannaaw bi mu demee ci benn réew takk fa soxna tuubal ko indi ko Sénégal benn rakkam décédé mu ni daal na jël kenn ci ay soxnaam wala boog sax ñu proposé ko ko daal xëy na ca la mer ga jógee daal waaye li mu wax daal nee na dafa mel dañ koo dëddaleeg soxna si parce que soxna si dafa takki bagaasam ànd ak doomam ni may te nee na mi ngi ci biir Dakar waaye waxu ko fan la nekk dafa pare pour ñibbiwaat ci dëkk ba mu jógee ak i doomam te bu demee jàpp na ne ay doomam mën naa nekkaat leneen lu dul tey jullit dëgg la sooy bu looloo tax parfois ñuy wax ak ah, occidentaux yi dañu xaw a raw ci benn côté. Hmm. parce que su fekkee xale yi xale lañ. sooy génn dëkk ba il faut am kayit buy wane ni. Hmm. seen papa joxe na autorisation ngir ñu génn su ko amul rek. dañuy hmm. téye xale yi jéem a dem xool seen papa ndax nangu na ou pas euh, ànd na ci génn bi mais comme que dama ne problème mosul woon am ci seen diggante ba seen mooy frère am. bu muy wax gaañu na et moom def na ci boppam ne ñoom waruñu def loolu est-ce ñoom dañu bëggoon euh, waa ji jël leen comme lu ñuy faral di def fii Sénégal da gis ñoo xamante nii seen jëkkër yi bu ñu gaañoo seen frères yi ñoom ñoo leen jël loolu tamit ñu xam ne peut-être ndaw si bugg ko wala da ciy opposé wu ñu jéem ko sàkkal pexe ngir dëddale ko waa ji xaw nag ba xam c'est vrai ou pas mais comme ni waa ji waxee man noonu rek laa ko déggee ñu jëm ko dëddaleeg moom mu dem pour ñoom ñu mën a am lu bëgg mais fi mu toll nii dañu indil waa ji beneen problème boo xamante ne ni musiba la xale bu leen yóbboo mën nañu comme nu li mu wax mën nañu demaat nekk si leneen loo xamante ne nii seen baay buggul ñu doon ko amaana te moom jullit la waaw xam nga de mbirum kii moom suñu boroom a ko yor xam nga moom fekk na moom fekk na waaw nit koo xamante ne ki nekkutoon ci diine mhm. juddoowut ci diine. Mhm. nekk ci beneen gi mu watat ko ba dugal ko ci diine. Mhm. kay nekk après ci diine moom kooku sunu borom moo ko xam. Mhm. nit mën naa juddoo ci diine génn ci. waaw waaw loolu yëpp tamit aussi mbind yàlla moom li ma dégg fii nag waa ji expliqué ko. waaw bon peut-être euh, que ni bon moom mi ngi wax naan dëddale ay kii yooyu mais est-ce du fii rànge rek tamit. ndaw si de. Ah, kan ndaw si de ndaw si waaw. mais fiir ba takk say bagages. waaw mais jël say doom dem. mais am na ñu koy def am na ñoo xamante ni boo leen takkalee ñu ñu gàddaay. dem mais léegi lu tax bu ko waxee waxee pour moom mu si kër gi ma. boole waaw peut-être da koy jéem kii pour xool ndax waa ji dina nangoo bàyyi kër yi ñëw moo tax mu koy bloqué ko débloqué. ok c'est que waa ji fi mu toll nii moom day moom mii est-ce que du moom lañ liggéey. kan. waa waa ji la xalaat déggoo moom. waa ji ci boppam la waa ji moom xalaat nañ def nañ ko dara déggoo mu ni dem na Mali. fu ne dem na fa ci wàllu kii. waaw parce que mais en tout cas daal ndaw si man li mu wax nii ci mbirum ndaw si. Hmm. ndaw su bañ a wujjee la rek daal. xam na comme que bañ ko takkalee ba mu amee kii la départ. Hmm. gàddaay dem yoonam. donc mooy wane ni bëggut bëggut a wujje dafa bëggut a wujje moom nag xam naa. non moom rumeur yi ba mu jógee àll. xam naa peut mu nekk tamit ci diina joo xam ni xamuñu woon ay wujje. xamuñu wujje li ñu xam mooy yow yow ñoom doo ngay ne. donc nag léegi moom ba léegi diina ja dafa des ci moom. waaw waaw diine ji mu dugg jëm njëkkoon a ne. waaw waaw dafa des si waaw da ko war da ko si waat ko ci kii toog moom. lañu waar xamal ko ne ko diine ji nga diine lislaam may nañu ñeent. commencé xamal ko yenn yi peut dafa am lu mu ignoré ci diine ji quoi yoo xamante ni bii xamu ko woon. donc nag loolu lépp ay kii la. d'accord voilà kon dafa bari lu mu réeré daal. Hmm? dafa bari lu mu réeré daal. Ah, dafa am lu mu réeré loo wax ci ma jigéen. numéro xayma yi. baa ngay jot de.

ci des bàyyil ba suba 69 euh, euh, ah, na ñu bàyyi ba suba incha allah. d' ma ba ba suba incha ma jigéen Diop ak El Hadj Sanjogu Mbeng bu ñu nee 10 rek incha allah Mamou Diaby euh, Gassama dina leen li nga xam ne moom mooy xabaar yi après ngeen am li nga xam ne moom mooy DJ Prince mu wéttali leen ba midi incha allah kon ma ngoog suba Hayo de CSU quatrième opérateur de téléphonie au Sénégal préfixe 812 pour le mobile et 36 pour le fixe. ñoo leen doon may seen émission Diomet